ko Baye Fall cent franc la la fi bàyyi wala deux cent Baye Fall daan nay nag cent franc la eh Cheikh cent franc yi ko joxoo ko ngóone eh waaw waaw waaw waaw xale bi moom soxla na di ay ma xool ma fompal la eh hmm. Tantaas nag sa yaay téeméer waroon bàyyi <laughs> ah. ma lekk eh def nii. moom moom wax naa lekk de. yow ku nga lekk lii. moo ne ma lekkal xale la kay xale xamul dara. lekkal xale xamul dara. ma naa xam nga yow lan mooy sa problème keroog fii nga jël soow mi naan ko naan ay dama ko teg sama gémmiñ dama ko bënn mu dem ah tey nga bëgg a profité ci xale bi naan moo ne ma lekkal bu la waxee lekkal da lekk. moom moo ne naa lekk de. moom moo la wax nga lekk. yow eh sa diggante yàlla maa lekk caakiri. doo wax seex bul tëdd eh waxal doon lekk jàkk bi ah yow sëñ bi doo wax néew ma la gis nga moo ne ma lettal lettal la moo mun ma ci dara xale la xale moomin la lu mu wax danga koo war a def xam nga lan moo ma fi xale bi mooy imbécile dëgg lettal mooy xale bi tamit yàq na sama lii